رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بك دار اكاديمية التصوف سينو طالب مفرين جاي مو لين دي نيو دي لين سياره بو باخا باخ دي لين دوكيل دي لين جاجفل بو باخ نيو بيك زيار بي نجي جيتال كليفاي دارا جي كو تي ملني استاذ محمد كما تياو واي تام كو تي ملني دكتور خادم بوسو ني لين دي نوي دي لين جاجيفال بو باخا باخ واي تام نيغي نوي اساتيس ييغا خامني نيغي ديفال اي دارس سي بير دارا جي كو تي ملني استاذ مالك باي بولي استاذ شيخ محمد بن المرتضى المدير oustaz Abdul Ahad Ñang oustaz Cheikh Tidiane oustaz Idris oustaz Ibrahima Khalil ak yeneen asatisa ak sëñ Mor ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu baax a baax waaye tam di jaajëfal baax itam ku ci mel ne sëñ Mbaye Wade ak sëñ Modou Mbacke ture ci seen liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy taxawee ci tasaare xam-xam ak yitte jiñ ci def ci jaajëfal bu baax a baax a baax di leen ci ndokkel di ñaan ñu daje ci ngërëmal suñu borom tabaraka wa taala kon incha allah ñu ñëw ci seen bindub tey mu aju ci xam-xamu miraas ñu nga andoona yéen téer mi ñax zawraxul xaa'id tey ñu wax si yéene jàng texte boobu ñu dugal mooy usulul masaili wal iwal mooy cosaani masala yi ak sompo goo xam ne yenn masala yi danañ ko sompo Euh, kon mbokk yi ñu ko waxee léegi ñu ngi fas yéene jàng usulul masail bi maana cosaani masala yi masala mu nekk fan la war a tàmbalee ak boo bëggee tër cër sàngam man masala moo ci baax bu ñu waxee cosaanil masala yi nag mooy masala yi nga xam ne tey boo bëggoon a joxe dara nga xam ne dafa am war masalan war naa am ku doon nisif wala war naa am ku doon rubu wala yu deme naka ngay def ba génne boroom rubu rubu am wala am ku doon sumun naka ngay def ba génne boroom sumun sumunam ak yu deme noonu ma tax mu ne usuluha sabatu duuna xulfi usuluha cosaani masala yi assabati yadi juróom ñaar doono xel fi ci lut wuute manam cosaani masala yi juróom ñaari cosaan la euh, juróom ñaari cosaan la mooy euh, yi nga xam ne juróom benn yi nga xam ne alquran tudd na ko waaye itam am na yeneen ñaar yoo xam ne mota axiruuni dañ ko cee dolli dana la ko tuddal incha allah mooy ne kon juróom-ñaari cosaan la masala yi moo tax mooy la al isnaani li ñuy wax isnaani mooy nisif wa doofu ak fulub isnaani mooy fulub ñaar mooy rubon wa doofu doofi ak fulub ajiful ji mooy sumu jubi ci sumun ndax rubon isnaani mi ngi bàyyi ko ci ñaar maanaam nisif mi ngi bàyyi ko ci ñaar fulub nisif mooy quatre fulub quatre mooy huit waaw ah, tax ma ne wa don fa don fi kasaanaka noonu salaasu ñett ngir boo bëggee teggi borom sulus wala borom sulusaani wa kasaanaka noonu sittatun juróom-benn cosaanul masala la dana la ko leeral wa difuha ak fulam mooy douze cosaanu masala la dana la ko leeral ak lu ko war a waral wa dégg nga ko wa dufi difi sitati ak fulub fulub juróom-benn maanaam juróom-benn boo ko fulee da jox douze nga fulaat ko mu jox la vingt quatre maanaam douze nga fulaat ko mu jox la vingt quatre loolu daal kon masala yi cosaani masala yi daal mooy yooyu juróom-ñaar yi ma la bëgg a wax kon mooy nisif ولا ربع ولا سمن كسان مسألة لا سلوس كسان مسألة لا سلوس كسان مسألة لا سلوثاني موي سلوس رك آه، آه، دوز كسان مسألة لا فان كاتيتم كسان مسألة لا مجيكي دو يملا جو كونوه موي إثناني إثناني بمعنى دو كسان المسألة لا ci bu fekkee ne da nga am ku war a teggi nisif wala nga war a am ku teggi ñaari nisif wala nga am ku war a nisif ak kuy xaaru des kon alal ji il fokk nga def ko de kenn ku nekk tegg benn wala borom nisif tegg benn kii xaaru des tegg la jël la ca des mu jox la misaal lu mel ne ku faatu woon tey bàyyi jabar bàyyi jëkkër bàyyi menn mbokk mu jigéen mu bokkal nday ak bàyyi wala menn mbokk mu jigéen mu bokkal bàyyi kese kooku in faut que masala mi nga def ko de ndax jëkkër moom da ngaa waxoon ne bu doom amul nisif lay doon mbokk mu jigéen mi bokk ak néew bi nday ak bàyyi da ngaa waxoon bu dee kenn nisif lay kon ñaari nisif ñoo fi daje te ñaari nisif dañoo def tamasul mooy dañoo yemoo ta ate bi moy nga doylo ben bu kon ala ji da koy def ñaar dang koy def ben nisif rek kenn ku nekk daal di tegg ben kon nisif cosaanul masala la ci bu fekke da nga am ñaari nisif wala nga am nisif aku dess nisif aku dess lu melne dom bu jigen ak koy xaru dess dom bu jigen ak koy xaru dess dang koy def alal ji ñaar nga jox dom bu jigen bi ben lu melne bu fekkon dom bu jigen dafay nek tay ak am da ngay jox wala doom bu jigéen nekk tey ak baay dangay jox doom bu jigéen bi nisif li des nga jox ko baay ndax moom dafay doon cër waaye dafay xaaru des ñaari cër la boole fi mu toll nii foofu moo tax alal ji da koy def ñaari xaaj kese kon nisif daal mooy lim bi gën a tuuti ci nga mën cee génne nisif ci nga mën cee génne nisif ak des ci nga mën cee génne ñaari nisif. deux ngi noonu cosaanu masala la mu ñëw ci double deux mooy quatre kaat itam cosaanul masala la ci bu fekkee ne da nga war a am ku teggi rubon wala nga am ku war a teggi rubon ak ku des wala nga am ku war a teggi nisif ak ku war a teggi rubon waaw masalan ku faatoon tey bàyyi jëkër bayyi benn doom bu jigéen waaye itam mu bayyi kuy xaaru des jabar jëkkër moom li nga waxoon ci ginnaaw léegi da nga war ne bu doom amut lu mu doon nisif nisif lu muy bàyyi ko ci dë ah, astaghfirullah jonga waxon jabar jëkkër la wax bu doom amee lu mu doon rubu rubu lu muy bàyyi ko ci kaat doom bu jigéen bi loo ko waxaloon léegi da waxoon ne bu dee moom kese nisif la war a doon nisif lu muy bàyyi ko ci dë kii xaaru des moom doo ko tuddal benn cër léegi ngir nga xool nag diggante nissif muy dë ak rubu di kaat boo leen xoolee ci al anzaarul arbaa mooy yi ñuy xoolee cosaani masala yi maanaam euh, li ñuy xoolee masala yi ba mën leen a boole mooy tamaasul ak tawaafuq ak tabayun yi dama noonu boo xoolee nisif ak rubu nga gis na kon dañoo def tadaaxul bi maanaa euh, nisif mën naa dugg ci rubu ñaari yoon bi maanaa deux mën naa daw ci quatre ñaari yoon te ateb tadaaxul mooy lan mooy danga ne woon da ngay doyloo ba ëpp kon foofu quatre moo ëpp kon da ngay daal di effacé deux doyloo ndax quatre boobu mën naa génne nisif yi doom ju jigéen ji waaye itam du te mën naa génne rubu'i jabar jëkkër ji waaye itam du tee mën naa génne euh, kii xaaru des moy kii ansib mu génne walam kon alal dang koy def ci 4 motax mu wéri fofu ci 4 su ko defee kaat nga daal di jël ñaar jox doom bu jigéen nisifam jël ben jox jabar jeuker moy rubu'am mu dess ben ki doon xaru des jël ko kon gis nga kon euh, rubu man na naa euh bu féké da nga am ko wara don nisif ak ko wara don doon ak kay xaru dess kon alal ji da nga ko wara def ñaari xaj manam da nga koy def yamal da nga koy def euh dima eh, ko bëgg wax légui da nga koy def kaat boo ko defee ñom ñepp da nañ ci mëna tégg seen ciir kon du mëno ko def deux ndax boko defé defee jabar manam dombu jigen jigéen dana mëna tégg waye jëkër du mëna tégg ndax rubu am du génn ki xaar des itam xanaa mën naa am mu mën a teggi ndax bu koy jëlee benn mu des benn mu jël ko waaye kon jël jëkkër itam xaajam du génn kon il faut que nga koy def ci rubon rek ci la mën a euh, bokk na ci itam rubon mën naa génn ci kuy doon rubon ak koo xam ne dafay ànd ak sulus ma bàqee comme lu mel ne xaraw yi masala xaraaw yi ni ba nga njàngoon benn fële ñetteelu masala bi mooy samaaniya mooy huit huit tamit cosaanul masala la ci masala bépp masala boo xam ne rek kuy war a doon sumun da caa nekk il faut que masala mi nga def ko ci huit benn kuy doon sumun ak kuy nisif nekk ca wala kuy doon sumun ak kuy xaaru des nekk ca waaw euh, mel ne ku faatu tay bàyyi jabar ak doom bu góor alal ji il fokk nga def ko juróom-ñetti xaj ndax mëna a sumu nup jabar ji bo génnee sumu mu tegg ben mu dess juróom-ñaar doom bu ji doom bu góor jël ko bu fekkee koy doon ci itam noni la lu melna tay faatu won bayyi jabar ak ben doom bu jigéen ak koy dess sax kon in fokk alal ji nga def ko juróom-ñetti xaj ngir nup jabar mëna a génn su dee boo ko defee juróom-ñetti nga tegg ben jox jabar muy sumunam mu dess juróom-ñaar nga jël ñeent jox doom bu jigéen muy nisifam mu des ñett su ko defee bu desee ñett nag mbokk mi doon xaaru des jël ko muy axu shaqiq wala axuli ab mi daat koy jël kon daal juróom-ñett mooy gën jaa néewi lim ngir ne boo bëggee génne sumun kon juróom-ñett il faut nga tër ko ci masala mi Euh, ñeenteel ba mooy li ñuy wax salaasatun mooy ñett ñett cosaanul masala la ci bépp masala boo xam ne sulus da caa nekk wala sulus ak koy xaaru des sulus da caa nekk wala sulus ak koy xaaru des lu mel ne ku faatoon tey bàyyi ndey waaye itam mu bàyyi koy xaaru des kon alal ji il faut que koy def ñetti xaaj nday teggi benn muy sulusam ndax amul doom bu ko dàq mbokk yi limuñ kay xaaru des daal di jël la des muy ñaar yi ca des alal ji koy def ñetti xaaj nday teggi benn la des kay xaaru des jël ko wala sax tey ku faatoon tey bàyyi ay doomi nday ak kuy xaaru des doomi ndey yi ginnaaw limu nañ rek sulus lañuy doon su ko defee lañ des kay xaaro des doon na ko kon gis nga sulus cosaanul masala la ci képp koo xam ne dafa war a tegg sul ñett laa bëgg wax cosaanul masala la ci képp koo xam ne dafa war a doon sulus ak koy xaaru des wala sax sulusaani ñoo xam ne dañoo war a doon sulusaani wala sulusaani ak xaaru des kon il faut que masala mi nga def ko ñetti xaaj lu mel ne ku faatoon tey bàyyi ñaar doomi jigéen wala mu bayyi ñaari mbokk yu jigéen yu mu nday ak bayyi wala ñaari mbokk yu jigéen yu mu bayyi ak koy xaaru dess kon masala mi il faut nga def ko ci ñett xaj nga def ko ci nga def ko ci 3 boo ko defee trois tegg ñaar jox doom bu jigéen su ko defé mu dess ben kay xaaru dess jël ko wala nga def ko ñaar wala nga def ko ñett muy sulusani nga jox ko mbokki nday ak bayyi wala mbokki bayyi kesse muy ñaar mu dess ben kay xaaru dess jël ko kon gis nga dal ñett képp koo xam ne da ngaa war a tegg sulus bu nekkee ci masala mi wala sulus ak kuy xaaru des wala sulusaani wala sulusaani ak kuy xaaru des il faut que masala mi nga tër ko ci ñett juróomeel ba mooy siis euh, siis itam cosaanul masala la ci mépp masala moo xam ne ku war a teggi sudus da caa nekk wala ku war a tegg sudus ak kuy xaaru des wala kuy war a teggi sudus ak kuy teggi nisif waaw wala kuy teggi sudus ak kuy teggi wala ku war a teggi sudus ak ku war a teggi sulus waaw mën naa doon itam ku war a teggi sulus wala ak ku war a teggi eh, nisif ak ku war a teggi sudus ñoom ñett ñu daje fa itam masala dang danga koy le ci siis bi maanaam siis daal cosaanul masala la ci ci képp koo xam ne dafa war a teggi suddus bu nekkee ci masala mi benn wala ko war a teggi suddus ak kuy xaaru des ñaar wala kuy teggi suddus ak kuy teggi nisif buñ dajee ñett wala ku war a teggi suddus ak ku war a teggi suddus ak ku war buñ dajee waaw kon il faut masala mi nga wérale ko ci six bu dee ku war a teggi sudus ak kuy xaaru des lu mel ne ku faatoon tey bay bàyyi ak doom bu jigéen ak doom bu góor masalam il nga def ko ci siis bàyyi tegg benn doom bu góor togg tegg la des wala yaay ak doom bu góor yaay jël benn mu des cinq doom bu góor jël ko mooy kuy teggi sudus ak kuy xaaru des euh, wala sax dañoo daje ñi daje tey dañoo war a dangaa war a am koo xam ne dañoo tegg sulusaani ak kuy tegg sudus dañoo daje ku tegg sulusaani ay ku ak kuy tegg sulusayni ak kuy xaaru des waaw ñett fi daje ku war a tegg sudus ak ku war ak ñu war a tegg sulusaani ak kuy xaaru des waaw lu mel ne ku faatoon tey bàyyi nday bàyyi ñaari doomi jigéen bàyyi mbokkum ndey ak bàyyi mu góor wala mbokkum baay kese tey góor in fokk kon masala mi nga def ko siis ndax boo ko defee siis ndey dana mën a teggib cëram muy sudusam ndax doom moo ko daq ñaari doomi jigéen danañ mën a tegg seen sulusaani muy quatre mbokkum nday mi wala mbokkum nday baay mi wala mbokkum baay mi kese tey góor moom itam dana am lu mu mën a moom mi doon xaaru des dana mën a des benn mu jël ko su ko defee itam gis nga sudus maanaam sudus noonu itam bu fekkee ko xam dafay deen kuy doon sudus ak kuy doon sulus ak kuy xaar des dañoo daje ba tey masala mi il faut que da nga koy wérale ci siis lu mel ne ku faatoon tey bàyyi ndey ak ñaari mbokk ak mbokkum bàyyi kese wala mbokkum ndey ak eh, moom itam ci sudus lay wére kon sudus sudus daal moo ëpp yaa moo gën a yaatu ginnaaw moom ñi muy boot bari na ñi mi boot bari na fintoon itam sudus bu fekkee daa war a am ko tegg sudus ak ku war a teggi nisif ak ku war a teggi sulus ni ma la ko waxee léegi kon masal mi dang nga koy wérale ci siis waaw boo ko wéralee ci siis borom sudus dana mën a teggi sudusam borom nisif dana mën a teggi nisifam borom sulus dana mën a teggi sulusam waaw ndax bu boobaa siis fi nekk ak deux ak trois bo xoolee yooyu yépp dugg nañ ci bir 6 ndax bo jëlee 2 ak 6 dañu def tadakhul 2 mën daw ci 6 ñetti yoon mu jeex bo xolé 6 ak 3 dañu def tadakhul batay 3 mën daw ci 6 ñaar yoon kon motax tax nga doyloo ci 6 kon dal 6 gis nga noonu mo gëna yaatu ginnaaw. waye nag 6 léeg masala wéré ci 6 ta fekk ko wara tégg su dus nekku ci dé laa te ab sew sew la léeg-léeg masala wéree ci siis du ceegi ne masala saa bu wéree ci siis rek ku war a teggi sudus da caa nekk léeg-léeg masala wéree ci siis te fekk ku war a teggi sudus nekk ci ñu toll nii léeg-léeg ku war a teggi nisif ak ku war a teggi sulus daje waaw ku a teggi nisif ak daje masala mi wéree ci siis lu mel ne ku faatu woon tey jii bu bàyyi woon jabar jëkkër bàyyi ndey bàyyi woon jëkkër bàyyi ndey xam nga ne jëkkër nisif lay doon ndey doom amul sulus lay doon te deux ak trois li nga ko jàngoon mooy dangaa jàpp dangaa jàngoon ñu ne tabayun la tabayun mooy ñaari euh, ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari cër yoo xam maanaam ñaari ñaari ñaari chiffre yoo xam ne dégg nga ko dañoo nunguwut a déggoo bii nu ngun a xaaj waaye bii nunguwut xaaj lu mel ne deux ak trois mooy tabayun wala yeneen yu demee noonu kon tabaayun atte ba mooy lan an tadribal kulli bil kulli bi maanaam mooy da ngay jël lépp dóor ko ci morom ji kon da ngay jël mi mooy nisif nga multiplier ko ci trois mu jox la six bu la joxee six nag jëkkër teggi ñett ndey teggi ñaar mu des benn ko doon xaaru des jël ko mooy alamu wala yu deme noonu wala sax li nga wax fii sulus muy ndey borom sulusaan tam mën na ko de waaw lu mel ne jëkkër ak ñaari mbokk yu jigéen mooy itam buñ dajee masala ci siis lay wére waaye boobaa dafay sompoo nag moom bu boobaa masala dafay sompoo ba juróom-ñaar ndax jabar jëkkër bu tegee ñett ñaari doomi ñaari mbokk yu jigéen ñi sulusaan lañu war am te sulusaanib siis kaat la te masala mi bi kee teggee ñett ñett moo fi des moo tax masala mi nag dañ koy somp ba juróom-ñaar waaw ndax maanaam daf mas masala dafa jeex kon gis nga juróom yiñ la limal limal nañ la deux li koy waral limal nañ la quatre li koy waral limal nañ la huit li koy waral limal nañ la trois li koy waral limal nañ la six li koy waral su ko defee nag mu des yeneen yi ci des ñeneen des nag mooy du duux foofu siis duux foofu siis moo tax xam laa waxoon ne ca bunt boo xool bayitu dana la kasa salaasun wa kasa sittatun sittatun googu ci lañ yem wa difihaa mooy fulub fulub siis mooy duus kon duus cosaanul masala la wa difuhaa googu mooy duus duus cosaanul masala la duus nag lii tax mu nekk cosaanul masala lii tax mu masala dem di wéri ci duus mooy bu fekkee ñi war a ko war a doon rubu ak ku war a doon sulus dañoo daje ak kuy xaaru des waaw ku war a doon rubu ak ku war a doon sulus moom ñoom ñaar fuñ daje masala mi il faut nga wérale ko ci douze lu mel ne tey ku faatu woon tey bàyyi jabar bàyyi nday bàyyi mbokk mu góor muy axu shaqiq wala axuli abi xam nga jabar ginnaaw doomu amul rek rubux lay war a am rubux mi ngi bàyyi ko ci deux mi ngi bàyyi ko ci euh, quatre nday ginaaw doom amul mbokk yi limuñ 3 la wara doon sulus sulus la wara doon sulus mi ngi bàyyi ko ci lan mi ngi bàyyi ko ci 3 legi mbokk mom day xaaru def doko bindal dara doko tudal dara legi nak da ngay daal di ñew xol diggante 3 ak 4 naka lañu def dañu def tabayun dañu def tabayun tabayun até ba moy lan moy am tadribal kulli bil kulli bi maana da ngay jël lepp nga multiplier ko ci lepp kon da ngay daal di jël 3 nga multiplier ko ci 4 4 x 3 mu daal lay jox 12 ah mu daal lay jox 12 bu la joxee douze nag euh, foofu la masala mi wére nga daal ne borom rubu ñaat la war a am borom rubu mi nga war a am trois borom sulus daal am quatre trois ak quatre boo ko boolee mi ngi nekk lan sept mu des cinq mbokk mu doon xaaru des daat koy jël nii nga waxee ni ci kuy doon sulus ak kuy doon rubu buñ dajee noonu itam ngay wax na kuy doon ñuy doon sulusaani ak kuy doon rubu buñ dajee lu mel bu mbokk yi limu won lu mel tay bu fi jaba jëkkër nekkoon ah, ak ñaari mbokk yi ak ñaar ak ñaari doomi jigen ak mbokk la nga waxon fe rek ngay wax fi ndax jabar jeuker dafa war doon rubu ndax doomi ya tax doomi war doon sulusani waaw su ko defé mbokk moom day xaru dess mom dees ko bindal dara nga dal wax 3 fois 4 12 rek bone 12 nga dal di jox jabar jeuker Euh, rubu am rubu am douze mooy quatre borom sulus borom sulusaani huit lañu ñu am ñoom hmm? su ko defee boo boolee trois ak huit daf lay daal di jox onze mu des benn mbokk mais daat koy jël soo gis nga kon douze mi ngi foofu am na ñuy jaal sax bay kuy doon rubu ak kuy doon sudus kuy doon rubu ak kuy doon sudus waaye ba tey bu boobaa mook fële lay ñëw rek ndax xam nga ne rubu ak sudus buñ dajee dañoo tawaafuqoo ci nisif rubu ak sudus xam nga dañoo tawaafuqoo ci nisif ndax six ak six ak quatre dañoo tawaafuqoo ci nisif ginnaaw dañoo tawaafuqoo ci nisif nag da ngay daal di jël xaajub lenn nga door ko ci lenn benn nga jël xaajub six mooy trois nga multiplier ko ci quatre mu daal lay jox douze yàlla rek daanaka mooy ñett rek Euh, euh, euh, mooy loola rek wala nga jël daal di jël xaajub xaajub deux xaajub quatre muy deux nga daal ko multiplier ci six rek mu daal lay jox rubu kon daal ñu war a sulus ku war a doon sulus ak ku war a rubu fu ñu dajee il faut que masala mi wéree ci douze ñu war a doon sulusaani ak ñu war a doon rubu fu ñu dajee il faut que masala mi ci douze ku a doon sudus ak ku war a doon rubu fu ñu dajee il faut que ci douze moo tax ñuy ne la douze cosaanul masala la cosaanul masala la kon benn nga noonu mu daal di ñëw ci ci ci ful gi nag gi mooy wa difu difi sitati bi maanaa six da nga ful mu jox le douze léegi nag mooy la douze googu nag nga fulaat ko nag waaw douze nga ful ko mooy nga nga def ko ñaar yoon day laa da lay daal di jox vingt quatre da lay daal jox vingt quatre léegi vingt quatre nag lan mooy waral nit ki maanaam lan mooy waral masala lan moo koy yóbbu ba ci 24 masala moom li koy yóbbu ci 24 mooy mépp masala moo xam ne ku war a doon sumun ak ku war a doon sudus ak kuy xaaru des dañoo daje waaw kuy war a doon sumun ak kuy war a doon sudus ak kuy xaaru des dañoo daje buñ dajee rek euh, nga daal di xool sumun mi ngi jóge ci 8 sudus di jóge ci 6. léegi boo xoolee huit ak six dañoo def tawaa dañoo tawaafuqoo ci nisif bi maanaa ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk mën naa xaaj léegi bu la neexee ah ateb tawaafuq nag mooy da ngay jël xaajub lenn dóor ko ca léppi morom ja mooy da ngay jël wifqub lenn li ma lenn nga dóor ko ci matuk morom ja mooy benn nga jël xaajub six mooy trois nga multiplier ko ci huit nga ne trois fois huit mu jox la vingt-quatre wala nga jël xaajub huit mooy quatre nga multiplier ko ci nga ne mu jox la soo ko defee masaloon lu mel ne ku faatoon tey bàyyi jabar bàyyi baay bàyyi doom bu góor ah, jabar moom bu doom amee rek lu mu doon eh, eh, sudus eh, sumun baay doom am na lu mu doon sudus doom bu góor ah, dégg ko doom bu ah, bu doon doom bu jigéen day doon sudus waaye day xaar bu fekkee jeexul mu jël la ci des léegi doom bu góor bii nag moom day xaaru des doo ko tuddal dara xam nga foofu léegi nga daal di xool nag diggante cërub jëkkër cërub jabar ak cërub baay huit la ak six mooy li ma la léegi dañoo tawaafuqoo ci nisif nga jël xaajub cërub baay muy trois nga multiplier ko ci cërub jabar huit mu jox la vingt quatre su ko defee masala mi ci vingt quatre lay wére su ko defee boo seddalee rek mu daal di def noonu mu daal di euh, mat baay dana mën a am wàllam jabar dana mën a am wàllam doom ji xaaru des itam du tee dana mën a am wàllam jot la mee uh, doon nii nga waxee fii fii nii nii nga tuddee fii baay boo fi tuddoon yaay itam noonu lay mel rek ñi uh, nga tuddee fii baay boo fi tuddoon yaay noonu lay mel kon itam ba tey rubu maanaam 24 uh, gis nga kon li koy waral mooy ko war a doon sumun ak ku war a doon sudus bu ñu dajee noonu lay defee wala ku war a doon sudus ak a doon sumun ak kuy xaaru des ñaar bi tam mooy ku war a doon sumun ak ku war a doon sulusaani ku doon sumun ak ku doon ak ñu war a doon sulusaani wala ku war a doon sulus waaw li koy waral mooy xam nga ne boroom sumun moom huit la war a am boroom sulusaani xam nga sulusaan da ngaa jàngoon léegi ci ginnaaw ne trois lay bàyyi ko te xool booy xool trois ak huit dañoo def tabaayun dañoo def tabaayun moo ndax bii nu ngun xaaj bii nu ngun xaaj donc léegi dangay daal lan mooy an tadribal kulli bil kulli mooy atteb tabaayun mooy da jël lépp nga dóor ko ci morom ji kon boo jëlee 3 fois 8 mu jox la 24 rek borom sul borom borom sulusaani itam dégg nga ko noonu la war a defee dégg ko waaye sulus nag moom xam nga du dajeeg mook sumun du dañ duñ daje ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci Euh, euh, xam nga sulus ak sumun xam nga duñ daje ci ci miiras moo tax du la ko wax ndax euh, sumun lii tax nit ki mën koo doon mooy doom am te nag bu doom amee borom sulus dutu mën a doon sulus waaw sulusaani rek la sumun mën a dajeel nag waaw dañ la ko wax noonu rek ngir nga jàpp su ko defee kon xam naa ñu yem foofu moo tax mooy la loolu juróom-ñaari yooyu mooy mooy juróom-ñaari cëri masala yi mu moy juróom-ñaari cëri moy juróom-ñaari cëri masala moy 2 3 4 8 6 12 24 moy juróom-ñaar yoy waye nak juróom-ñaar yi amna ci yo xamne dañuy sompo nak motax moy la wal awlu sompo ga fi salaasatil axira nek na ci ñet yu mujj yi mom dañuy sompo moy 6 ak 12 ak 24 li dayghi ngir qat an furudha ñeel ay ciiram al yi aji bari ngir ne ñiko wara don dañu ko xajoowut du ceeg na dañu dol cër yi waaye dañuy tas tasalaat cër ba ñoom ñëpp ñu xaj ci incha allah buñ dikkaatee danañ ko leeral euh, su ko defee kon bu ñu dikkaatee ànd ak yéen danañ tàmbalee ci baabul awlu foofu ñu tàmbalee ci sompo ak la koy waral kon ñu ngi yem foofu di ba yeneen jamono di gërëm mbokk yëpp tey jegul boo wax ci guddal gi lu ci jub ci mbaaxu suñu borom tabaaraka wa taala ak tawfiixam lu ci dëng suñu néew xam-xam suñu ñàkk fasaa ak ma tawfiix ila billah